mais qui ki jar a jàppale booy ki xamante ne Daphné. Sénégal c'est un état de droit Sénégal fait de transparence Sénégal, il euh, Sénégal dafa verrou sur le troisième pilier du plan Sénégal émergent la transparence l'état de droit Bonne son excellence le président Macky Sall

di nga indi pièce justificative yëpp ñu xool ndax lépp mat na bu lépp matee ñu joxaat la kees beneen mais li xew du loolu li xew mooy fukki fan juróom yu nekk rek dañ doon jël fukki million juróom di ko jox nit mu def ko ci poosam te du wax mukk fan la ko jaarale loolu nag bokkul ci jub bokkul ci li ñu leen diggoon yéen Sénégal yi ne bu ñu jëlee nguur gi nañ ko def bon dëgg li ma bëgg mooy euh, ñu bañ a nax sénégalais yi di victimiser wu bi ñu songee place de l'indépendance bëgg ko defar dañoo daw victimiser wu ne noonu dañ ñu bëgg a sonal ñu bàyyi ko place de l'indépendance ba léegi kenn gisul benn mool place de l'indépendance bi ñu songee yeneen dossier dañoo daw ne Dakar waaye dañ ñu bëgg a sonal bu ko defee ñun tam ñu bàyyi mais lii nag xaalisu Dakar waaye la te Dakar waaye dañuy exiger ñu leeral ko

c'était une véritable machination une escroquerie politique du Sénégalais y waruñ ko nangu les Dakarois ne doivent pas l'accepter